Méritée, conquise au fil des ans par sa capacité à sculpter les mots et à leur faire dire ce que nous ne pouvons pas dire la poésie est un privilège, une grâce, dirais-je. Cette grâce a touché, a touché et il est heureux que cette grâce soit partagée avec Amadou Lamine, très tôt identifié par le président Senghor comme son successeur spirituel. Euh, je pense que les jeunes euh, ne savent pas par quel cheminement il a gravi les échelons de la poésie au point d'avoir été honoré au Maroc, un honneur qui est le nôtre, puisque c'est un du pays. Sa manière d'être, dans sa manière de s'excuser même de prendre la parole, qu'il est une personnalité dotée de vertus dont notre pays a besoin aujourd'hui. J'ai commencé par Amadou Binsal, j'aurais dû commencer par notre Edine, Babacar Beng, qui est pour moi un frère, un jeune frère, pour plusieurs raisons. Nos relations familiales avec sa maman, à qui je souhaite une longue vie et une meilleure service au Sénégal dans le cadre de la reconfiguration géopolitique du monde, la Russie prend de l'importance dans le monde. Et il est dommage que la cité l'Union soviétique, il est dommage que des personnalités comme lui ne soient pas suffisamment écoutées. Et pour dire les choses, il faut que Anne, il faut que Yara profite Moi, je sais à quel point en deux coups de fil il peut atteindre Vladimir Poutine. Et pourtant il est là, à Iran, faisant de la bouillante. Moi je sais, Je suis certaine, <laughs> pour parler comme l'autre, qu'il a les connexions qu'il faut pour la Vladimir Poutine en deux coups de fil. Pourquoi on va laisser nos gens ne pas, pourquoi on ne tire pas profit de mon champ

Pape Sadio mi nga xam ni c'est le modérateur parce que dama njëkkee sama droit di wàcc ma tëg ko ngir wax ci Anta parce que moo waral bés bi Pape journaliste le professeur l'enseignant enseignant mais lii ma journalisme je lui disais tout à l'heure il n'est pas dans l'anecdotique chez nous le journalisme vire à l'anecdotique diw gis na wax nga du journalisme. journalisme doit analytique nga gis ay fait nga xool lan mooy dox ci diggante fait yooyu ba jur beneen fait nga firi wax ñu ne lii mooy xam-xam bi ci war a génn bu boobaa ku lire journal la ko ca neex mu ànd ci la ko ca neexul mu teg ko de côté wante au xam-xam dana ci génn loolu nag dafa tumuraanke te mu ngi waaja léegi sunu réew li ñuy tuddee journaliste ni ñu koy firee sax dafa ñaaw taskatu xabaar taskatu xabaar mun na tas mu réew benn ñaar du xabaar moo jar a siiwal am nay xabaar yoo xam ne soo ko xamee sax denc ko ndax day yàq penc kon yooyu yëpp bokk na ci ñi ñu war a seetaan ma gàttal ne Amadou Lamine cër bi ñu ko jox daf ko mérito soo gisee téeréem bi nga xam ni œuvre complète am mu ngi ci biir nii la day du lu ñu saax-saaxee am naa chance itam nekkoon na sama conseil technique bi ma nekkee ministre de la culture mu am projet bu ko soxal lool muy projet mémorial de Gorée dundam yëpp ci la ko def wante suñu réew gis nga Souley Anta am na lu mu ci wax dangay am yéene ci sa réew am projet pour sa réew ña ko yàq doo ko xam moom li mu wax ci poste ambassadeur dëgg la man déggoon naa ko wante ni mu koy waxee yenn saa dañuy ne buur aayu dak yaa loolu nag la war a jéem a lijjanti ngir xoolaat sunu dundin ci sunu biir naka la ñuy def ba li fi war a fi a ndax yéene yi gën a rafet ci comme nag ñu ngi ci ah des quartiers la quartier village historique village historique boo le maire foo ñu conservation écologique ànd fekk

poésie Amadou Dramin Sall loo soo ko liiree daa yëg ci sa xol ne xam-xam am na yéene bu rafet am na mais su fekkente ne dañuy bàyyi suñu réew dem ba ñii mbaw ci réseaux sociaux yi ñoo ëpp kàddu ñi am ce que j'appelle la parole créatrice la parole fondatrice la parole vivifiante au détriment de la parole dafay doy ngeen baal maax nag faaga dama xaabaabal sama yéene moo di day ba su sule sule euh, anta moo day noonu que mu tuddee moo ko jar soo toogee ci kanamu meer nag soo amee looy wax wax ko ba mu jeex li ci des nag ñun ñëpp